jaajëfal alxaaji sëñ si la mu nekkoon ci jataay bi naanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara dée bi ñu yëkkati jataay bi ci covid 19 te tolloon ci paj meeg kim dalak moytu gi dañu ñëwoon ba toll ci ña nga xam ne dañ caa faatoo ña nga xam ne dañ caa faatoo li war ci ñu war koo defal ab néew ci wàllu sang ci wàllu sang ci wàllu jullee ci wàllu denc denc gi it léeg-léeg mu aajowoo jële ko fam faatoo yóbbu ko fa mu dëkk yooyu yépp mën na cee nekk waaye lislaam day diine joo xam ne ji diine ju ju ju ju dégg jamono la waaw dina la joo xam ne ji ju dégg jamono la jamono doo ko weesu mukk ma wax la ko lépp loo xam ne mi ngi xew ci pénc mi rek am na lu ca prévoiroon ba noppi maa farnaa fil kitaab min shay waaw moo tax euh, su loolu amee mu taxaw ca su fekkee nag dafa nekk faf ñoom dañuy lakk ay néew lislaam dagganalul ñuy lakk sunuy néew taxawaay buñ ca mën a taxaw su boobaa nañ ko ca taxaw ba kenn du ko lakk ba baañ ca ñàkk pexe nag ndax ñàkk pexe moom ñàkk pexe la waaye daal nañ ca taxaw lu la waral ba mu ne cëpp sunu kàddu ca kàddu ya moo doon nab état jóg ànd ak ña ca seeni néew des dox ci lu leen indi ba baa muy të waaw def naa loolu sax lañ mujj def tabaarakallaahu yàlla kenn bañ caa des ña ca jote des yàlla na yàlla yërëm leen mu ngoog mu ngoog su boobaa it su fekkee génn na ci àdduna gaaw gaa dencey li gën gaaw gaa denc mooy li gën ndax sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibnu Umar nee dégg na ko muy wax iza maata ahadukum hmm, fala taxsabuuhu wa asrihu bihi ila xabri mu ne bu kenn ci yéen faatoo bu leen ko bu leen ko denc maanaam bu leen bàyyi néew bi ci kër gi gaaw leen yóbbu ko xabroom gaaw leen yóbbu ko xabroom waaw euh, bu fekkee nit dafa faatu ci feebar bii yàlla tere te nekkub jullit dagan nañu sange ko nañ ko mën a sange ci xeeti sëngukaay yi waaw sangukaay yi nga xam ne mën nañ ko caa sang te sori ko maanaam te dànd ko xeeti raakoor lay doon xeeti sas lay doon mën nañ ko ca sang te dànd ko waaw te boole ca nag sart yi nga xam ne mooy sarti sang néew ci charia islamiya wala boole ca it sart yi nga xam ne mooy sarti way wér-gi-yaram yi yan ca jàngale ñaar yépp bu ci nekk valable na des na ko càab boole waaw mënees na ko càab boole ndax léeg-léeg nga dégg ku ci des la jël ko it yóbbu ko ci sëgi jullit yi loolooy li jaadu taxaw ne du fi amee nag loolu moom jaaduwut waaw kii ab néew la boo xam ne bii nee nañ ci corona bi la des ñu defal ko ñu ko war a defal yëpp bëgg ko yóbbu ci sëg ya ñu ne du fi dugg loolu nag ëpp nay def nañ ci bàyyante xel nañ ci bàyyante xel waaw loolu ëpp nay def waaw te itam yàlla alam yaalam bi anna allaha yaraa daa war a tiitloo ñëpp lépp looy def laaju ji day taxaw ne la alam yaalam bi anna allaha yaraa yëgoon ne li ngay def ni maa ngi lay gis kon nit génn àdduna nga taxaw ne kenn du ko fi denc sa bés ngi ñëw lii mu def nii <laughs> sa bés ngi ñëw te hadis ba nee na luwaay màgg màggat ca luwaay màggat dee ca waaw kon nag sa bés ngi ñëw te yow xamuloo bi kii bi ko corona jëlee yow lu lay jël ndeysaan lu lay jël moo tax gis nga njàngaleem diine xawma kañ lay dugg ci sunu école yi waaye yem ci daara ji rek déedéet daara ji it bu ci nekkee na ko ñépp jàng ndax day may nit ñi moral defar seeni jikko defar leen ba ñuy dunu laa darara wala diraar mbokk yi ab jullit ci kanam moroom jullitam ak num ko jàppe ak num jàppe ne moom moo ko raw ak num jàppe ne kee des ko raw wala dafa sàggan jàppal ne ab jullit la na nga ko xajoo yaatalal sa dënn rawatina nag dafa génn àdduna ñu defar ko ba di ko denc hmm? boo sànnee ay xeer ña koy denc si déggoo li xew bés nga nële di ñëw yow mi ko sooke yow ma ca bokk yéen ña ko séq ñépp ku ci ne nii kii def dangeen ko def niñ koy defal daa leen ko defal sang ak sang ak julleeg rob hmm. mbaa li nga leble nii duñ la ko fay mbaa li nga leble nii duñ la ko fay hmm, kay ah kay kamaatu diinu tuddaanu yonent bi nee na loo leble ñu fay ko mu leen benn xale bu góor dafa am papaam pour moom dafa jàpp ne papa ji dafa compliqué te daa wax waaw pour moom dafa compliqué dafa bëri wax waaw mooy paa yooyu nga xam ne rek la yàlla xam doy na xale bi daal amul lenn lu muy def xanaa jël këlaandoo jël kalandoo ànd ak kalandoo ba ne day sànni ji papaam da koy génn kër gi non seulement da koy génn mais da koy sànni ji mu waxaale kalandoo ba kalandoo ba fayu ko quinze mille pour mu yóbbu ko àllu kaañ waaw àll bële ca boo weesoo puut euh, jëm Cees ca sa càmmoñ waaw ndeysaan mu ngoog léegi mu dugal papa ji ci oto bi ñuy dem di dem ba àllu kaañ mu ne oto bi jëlal góos mu jël góos ba jege ba jege usine ciment ba mu ne ko jëlal droit leru leru raay bi mu jël droit leru raay ba ca kanam mu ne ko taxawal fii papa ji ne ko lu xew mu ne ko dama lay sànni kër ga mun duñ faa bokk nekk waaw fatt nga ma fatt sama njaboot waxa waxa wax ba ne xaw daal fay bëgg a bàyyi góor ga góor ga téye ci ci mbubbam ne ko déet déet mu ne ko lu xew mu ne ko fi ma sànni dafa jege fi nga ma sànni dafa jege damaa bëgg nga dem ba génn cene ba door maa sànni mu ne ko lu xew mu ne ko man sama papa tëngéej laa ko sànni woon mu ne ko nga ne mu ne ko sama papa man tëngéej laa ko sànni woon léegi nag comme yow danga may sànni na ma sànni woon sama papa yokkal ma sànni ma cene ba su ko defee ba sa doom ñëwee sànni la xombal <laughs> booy ba ne cuub ne baay ji dangaa sànni woon sa papa mu ne ko moo tax nga may sànni bi mu delloo si paa bi gi mbokk yi ñun ñëpp na jàng bind boobu ku sànni sa bàyyi sa doom sànni la ku janni sa bàyyi sa doom janni la ku yuuxu sa bàyyi da nga jur ku yuuxu waaw ngeen baal ma ci ton may waxe nag parce que je suis un yooyu day am ma ne ku yuuxu sa bàyyi da nga jur ku <laughs> ku yuuxu sa ku janni sa bàyyi danga nga jur ku lay janni maa la ko wax de xësa bi firnde la ci ma del siwaat kon ki faatu ci corona bu ñu bëgg ko rob ci barab ñu ne deesu ko fi robe ëpp naa def bu leen ko def ku ko xalaatoon na ko bàyyi waaw ku ko xalaatoon na ko bàyyi te xam ne yow sab robe ngi ñëw hmm? waaw affaire bu garaaw nag la sab robe ngi ñëw te dëgg la de sab robe ngi ñëw de te xamoo fu ñu lay robe ak nu ñu lay robe te xamoo ci ban feebar ngay faatu waaw xamoo ci ban feebar ngay faatu xamoo nooy faatoo waaw xaaj ibrahima saaxu jàngalekat ba rahmatullahi alayhi wa radi anhu nee na boo dëkkee ki ilimaane ki boroomi xam-xam fexeel bañ xam la ci def lu baax hmm? fexeel bañ xam la ci def lu baax bëgguma tudd ay tur nag waaye nit ñaa ngi def yu baax yoo xam ne tey boo yëgoon ne génn nañ àdduna fi nga toog ngay defee say ñaan hmm? sama góor gi woon ci jumaay jëppal suma góor góon ci jumaay jëppal te santoon jaw nga xam ne dama dama toxu ci jëppal wala boog liberté 3 ñu ñu programme ma ma bokk ca ñay bayaan balaa imaam a génn ba ajjuma ma def benn bayaan rek góor ga san ajjuma ju jot moo xam maa bayaan moo xam bayaanuma am na lu may yónnee may misaal nag mbokk yi kañ laa xam ne góor gee kera ba mu faatoo ajjuma ja tege lam ma daan yónnee jotuma ko ma ne kii la waaye yëgal ne loolu defkat yu baax yooyu bés bi nga yëgee ni ki doon def lu baax tey moo fi jóge tey boo ñaaneeg boo ñaanut li nga yëg ci sa xol mooy ak ñaan bu fekkoon dañoo dañoo jóg ci sa wet caabi aljanna danga naan ko jëlal benn loolu laa bëgg a wax rek mooy kon boo fekkee ku ñuy denc rikk waay yor say xeer ne kenn du ko fi denc ëpp naa def mukk bisa ngi ñëw yow yaa aye wa tilkal ayaamu nu daawiluha bayna annaas waaw kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum waaw seet tët am na solo de waaw bu dee ci nit ki dafa faatu ci korona docteur Ahmed jaale ji ko lu ñu sopp la jaale ji ko lu ñu sopp la waaye jaaleeg jamono ji day wuuteeg jaaleeg jamono yële jamono ji dem teg say sées ah, togg say ceeb nangam nangam njaal mii wuute nag njaal yële waaw njaal mii wuute nag njaal yële njaal mii mën ngaa woote téléphone sigil ndigaale sigil sa wàll waaw tabarkàlla sigil ndigaale sigil sa wàll ki ngay jaale comprendre la yow mi koy jaale nga comprendre ko ndax ci biir feebar bi am na ñoo xam ne faatu nañ ci sax te faatuwuñ ci korona waaye dem jaale ji jàppandiwut nooy def woote téléphone ñu sigil ndigaale waaw sigil ndigaale sunu wajur wala ca Thiès waaw Haji Omar Sow ci biir la faatu te faatoowul ci feebar bi te daje ca kër ga jàppandiwul waaw daje ci kër ga jàppandiwul waaw nun doom yi rek nooy daje ci kër ga taxawu ko waaw denc ko dem ñibbi waaw yal na yàlla woyofal suuf ci koom te yërëm ko te àpp sore kon njaale mën naa am ci ku génn àdduna ci korona bi mën naa am ci ku génn àdduna ci biir xew-xewi korona bi te bokkul ci feebar bi waaw bu la neexee whatsapp jaale bu la neexee téléphone jaale bu la neexee nit di dem nga ne ko waaw jaale waaleel ma ko ila axiri yi ndax euh, toxal feebar bi su boobaa yooyu dañ ko ciy daw waaw dañ ko ciy daw ginnaaw yooyu yëpp nag ginnaaw yooyu yëpp nag ñu ñëw ci euh, ñaan waaw ginnaaw yooyu yëpp nag ñu ñëw ci ñaan danaa ci dikk xanaa damay ñëw ci tey ak ëllëg incha allah ci conclure waaw tey ak ëllëg incha allah ci conclure mooy ginnaaw feebar bi xew na ci pénc mi xew ci pénc yu bari jël ay bakkar yu bari actuellement mu dal ñu bari nga ñëw sunum réew mu dal ñu bari jël ñu bari yàlla na fi yam yàlla na fi yam kon am na ay ndénkaan ak i joxañ yoo xam ne day jëm ci jullit yépp waaye am ay ndénkaan yoo xam ne day jëm ci pouvoir politique bi waaye am ay ndénkaan yoo xam ne day jëm ci ñiy yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ah waaw waaw nanu tàmbalee ci li jëm ci jullit yi waaw ndénkaan yooyu bankal sa baaraam mooy tuub ak tawbatu sadiqa tuub tuub gu dëggu waaw lan lañ def yàlla ba ba coronavirus yeewu ci virusam yu bari yi lan lañ def yàlla xamuñu ko nanu tuub ilayhi subhanahu wa taala waaw nanu tuubal yàlla ndax bàkkaar yeeg euh, deri jullit yi ñuy yàq ak deri sëriñ seeg ni pénc mi mel ci wàllu whatsapp yeeg yooyu nga xam ne ku la neex wax ko la neex nanu tu nanu dellu tuub ci loolu ndax yàlla am na ci jaamam yi ñoo xam ne ku yëkkati seen sidditu jë sa sidditu jë du tal mukk ba àddunay tukki man aadaali wala yéen faqat azantu bil xar bi la wax te boo seetloo penc mi am na ci fit yoo xam ne dëgër nañu fit ba ku ne ak koo mën a doon ca sunu mag ña démb ña sunu mag yi tey yi sunu mag yi ëllëg yi lu ne mën nañ leen ko wax te alxuraan ma nga doon jàngal suratul xujuraat eh, ni ngeen di seen langage yi bu leen ci boole yonent bi hmm? waaw waaw seetetet seen langage yi seen waxin yi ah, moom bum ci bokk allahu akbar bu mu ci bokk de loolu ne na ngeen ko wax de ba mu des ngeen bëgg a jël langage bu bokkut ak wi nge wi maanaam yi ngeen di waxante ngeen bëgg ko waxante ak moom cetëtëtët waaw loolu bu leen ko wax ak moom wax ma wax ak moom sax waaye bu seen kàddu di jóg ca ca kaw waaw ngoog na seen kàddu suufe ci kanamam waaye laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu li bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd waaw moom mu ne loolu bu mu am donc ginnaaw loolu la jàngale woon ca alayhi salaatu nan ko doxal ci sunuy kilifa waaw nan ko doxal ci sunuy kilifa waaye daal nan dellu ci sunu borom nan ko tuubal àdduna àdduna yàllaa ko moom moom jaam yi yi am ay soldaaram yu muy géereeg nit ñi gis nga virus bu mën di doon dey nelaw yépp a ngi nelaw Serigne Cheikh ko doon jàngale nu jàng ñu ñëpp wattaqu fitna laa tusiibanna lazina zalamu minkum sa ñu jàng ci addis al fitnatu naaima yàlla nee na bi nee na virus yaa ngi nelaw yàlla laana law man ay xataxaa ko yee yàlla bu la yàlla yërëm virus yaa ngi nelaw lu yee virus yi mooy jëfi doomu aadama yi ci pénc mi lekk luñ la tere ca la bokk naan luñ la tere ca la bokk ila axiri ila axiri kon la ci jiitu mbokk yi mooy at tawbatu sadiqa tuub mag ñu tuub gone yu tuub góor ñu tuub jigéen ñi tuub sëriñ si tuub politiciens yi tuub ñépp maase ci tuub gi tuubu illaahi tawbatan nasuha ñépp maase ci tuub gi waaw de ndeysaan abu madiana sëriñ Shuaybu waaw saxoo bàll moo ñu ko doon nettali yal na ko yàlla yokk wér sëriñ Shuaybu ca téeréem ba mu ne nan maase ci tuub ñun ñépp na gone yu tuub na mag ñu tuub na góor ñu tuub na jigéen ñu tuub ndax gonde dana dee mag dana dee jigéen dana dee góor dana dee ñu ne ko nu ñuy tuube mu ne tuub mooy mel ni ku joggi ci xal tuub na mel ni ku joggi ci xal ñu ne ko waaw mu ne ki joggi ci xal wi bu ko gisoon avant mu ciy joggi du ci joggi ñu ne ko dëgg la de mu ne bi mu ci joggee yëg new xal la dafa daal di teggi tànkam ñu ne ko dëgg lu di dëgg la mu ne bi mu teggee tànkam juutu ko ca delloo ñu ne dëgg la mu ne loolooy at tawbatu soo nan tuube noonu ñaareel bi ci yooyu ñu soññ pouvoir politiciens yi politiciens yi waaw euh, ñu jàppale mbooleem ñoo xam ne bu ñu masaan di jóg di wuti lu ñu dunde daf leen di jafe bu feebar bi ñëwee toog loo leen bu leen fa kenn fekkut ñu jaaxle waaw dafa am ñoo xam ne dañ daan tëcc ba sonn door a am lu ñu lekk kon ñooñu jar na ñoo jàppale ñooñu nag moo xam transport transporteur yi la moo xam safoor yi taxi la moo xam safoor yi jakarta la moo xam sëriñi daara yi la moo xam école privée yi la lu ci man di nekk ñoom ñépp a soxla ndimbal même ci même ci organe de presse yi da nga yëg ne service commercial daanaka kenn nga fay fekk léegi sunu émission yi sax yëg na ko fi ne sama waxtaanu fajar wii fi nekk nii danga daan yëg ne vingt minutes laa daan def ndax ay sponsor nañ ma baal léegi maa ngi def vingt cinq minutes ndax benn sponsor waaw kon ñépp a ko yëg sunu borom nee na aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii fa lasina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir ndaw aaya juréy mu ngi ci alxadid ndaw aaya juréy sunu borom daa wax ne aminu billaahi wóolu leen ma <laughs> aminu billaahi wóolu leen ma wóolu leen yàlla wa rasulihi wóolu yónentam bi wa anfiqu te ngeen dépensé wa anfiqu te ngeen financé allahu akbar waaw parce que ki wóoluwut yàlla wóoluwut yonent bi du ko jox dara waaye ki wóolu yàlla wóolu yonent bi de xam ne yàlla ak yonentam seeni projet dafa dafa bari mu ne wóolu leen yàlla wóolu bu yonentam wa anfiqu te ngeen te ngeen financé te ngeen joxe lu ngeen joxe mimma jaalakum mustaxlafiina fii ci lu dugg ci seen loxo te dana ci jóg ci lu dugg ci seen loxo te dana ci jóg ah waaw waaw lépp lu dugg sa loxo ci alal bisa ngi ñëw mu jóg ci ndey ndeysaan moo tax keroog ba soxna Aram Mbàkke fore millions yu bëri ya <laughs> yal na ko yàlla yokk wér soxna Aram Mbàkke fal million yu bëri ya ba noppi yëglu ko ma am sama benn xarit mu mu tëdd sàngu ma ne ko lu xew mu ne ma damaa feebar ma ne ko looloon ci feebar muy damaa am damaa am euh, damaa am euh, bàkkaaru for ma xew mu ne ma damaa xam ne xaay bi soxna si for bu ma ko foroon boroom du jot mu ne ko <laughs> da ngeen a bokkut waaye suñu borom ne mimma jaalakum mustaxlafiina fii ci li nga xam ne da ngeen cee remplacé wu gars yi li nga yor nii daa am ku ko yoroon bés ngi ñëw nga jox ko kenn mu yor ko moom fa lazina amunoo nee njëggam ñëggam minkum ci yéen te wóolu ma wa anfaqoo te financé lahum ajrun kabir am nañ pay gu rëy suratu hadid aya 7 mbokk yi bind bi jeexut damaa toll ci di ko di ci ci conclusion yi far sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi agsi ñu ngi nii taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncal leen ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii di C3S nekk ci eh, Kër masaar ca yoonu Lagros wa yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu